ndegam nak kaset bi fessut nu far ko feccilee lan waxon ne ad dinu an nasiha diine la laabire te don ci wax mbiri tenji wala muru yalla mo dogal ab julit di genn aduna di fi bayyi soxnam bu ko defé nak ñu def ñu wax muuru dafa bari nak ay lool ñu bëgg cee joxe waxtaanu gàtt wu mat a jàpp jigéen joo xam ne jëkkëram da koo fase man naa waaj waajtaay woo xam ne lislaam maye na ko te wutaat geneen jëkkër waaye jigéen nag bu jëkkëram faatoo diirub idda ja da cay boole li wax tenj wala muuru te moo di ñaawlu ñaawlu mooy bàyyi xel jëkkëram ji génn àdduna bañ a waaj waajtaayu àdduna tenj googu nag mbaa nga ne ñaawlu mbaa muuru jigéen ñi dañu ci juuma ka jaawale lool léeg-léeg ñu jàpp ne liggéeyal seen jëkkër ja faatu la maa def lëggéey la bu ñuy lëggéeyal seen jëkkër jëg génn àdduna lislaam moo digle jigéen ju nekk julit jëkkëram faatu mu bàyyi lépp luy waaj taayu àdduna biir ba muy iddawo ngir sàmm oromay jëkkërum joojee faatu nde ci wàllu jaamu yàlla gi moom niki teg jul yu juróom ak war a sàng ci yaramam lépp lu mu ca war a sàng amul kenn soppiku nam ko ware woon rek la ko ware ba tey amul lu ca yokk amul lu cay wàññiku kon moo ngi daal wax yi nga xam ne jigéen ji muuru war na ko jàpp bu baax xam ne loolu rek lañu ko aaye lu bokkut teg loolu mën na ko bi ci jëkk mooy lépp lu ñuy waaje ci xeeti takkaay yi moo xam jaaroy nopp la mbaa jaaroy loxo mbaa ay lam lépp luy xeet takkaay rek dana araam ci moom mu takkaayoo ko ak lépp luy xeetu lat lañ maanaam lu neex xeet du sañ a jëfandikoo dara lu am xeet gu neex kon nag bu fekkee jigéen ji daana defar lat ko lañ di ko jaay mbaa sax mu daa ko jaay rekk noonu te bu koy defar mbaa mu koy jaay dana ko taq xeeñ ci moom kon bu dee kénj wax nga ne bu dee muuru du sañ defarati at du ko mën a jaay waaye nag mën naa seet keneen ni ki jeneen jigéen yoo xam ne moom muuruwut mbaa geneen góor mu di ko ko defaral mooy di ko ko liggéeyal mbaa mu di ko ko jaayal ñaareel ba mooy xeetu yére boo xam ne dañu koy waajee moo xam dañu ko suub moo xam kenn suubu ko bépp yére bu ñuy waaja rek bu ko saña sol lu may nag yére boo xam ne suub nañ ko waaye dañ ko def cuub gu ñuul dañ baaxoo ko sol ci bisub naqar cuub goo xam nañ ko ñuulal baaxoo ko sol ci bisub naqar moom mën na koo sol moom daal lañ koy aaye mooy sol yëre yu ñuy waaje ndax waaj ga dañ koy aaye waaye lépp luy xeetu yëre bu jigéen di sol rek te du waajtaay rek mën na ko sol ñetteel ba mooy du sañ defar boppam mbaa yaramam ci dara loo xam ne dañu koy nëtëxale yaram di ko ko rafetale lépp luy rafetal yaram di ko nëtëxal rek da koy moytu day araam ci moom du ko sañ def lo xamne nak nag da caa setal rek yaram wa te amul xet gu neex niki ordinaire wala karité ak lu nuru loolu mom man na koo bu wat ab naqam wala dindi kawari tanam yooyu yépp man na ko dara nekku ci li wax nak tusngal mom dañ ko jàppe du tusngalu ngir bëgg rek lu rafet su fekkee nag tusngal ba da koy fajoo bët dia ya ba am wéri di mu di ko tusngal ngir fajoo ko kon mën na koo fajoo la ci gën nag mooy mu di ko def ci guddi gi bu bët seetee rek mu dindi ko ba mu set bu fekkee ne nag mënu ko ñàkk def ci bi itam da koy fajoo kon loola paj maa ko laaj ñu jàpp nag bu baax ne am na yu bare bari yoo xam ne ay xeeti aada la rekk ñu fekk ko fi mu leen di sonal waaye du dara mel ne teg ab layoog ay paakaak yu ko nuru ci seen kanam wala sàkk waxtu woo xam ne ca la ñuy sangu mbaa ca la ñuy fóot mbaa ñu naa bu fóotee balaa génn lam fóotoon day wow xeet yooyu yëpp nañ jàpp ne ay xeeti bi daa la day sonni rek te amul benn njëriñ ba tey nañuy mooy baax tàllal seeni tànk jëmale xibla maanaam jëmale fi nga xam ne boo dee julli fa ngay jëm ndax tàll ay tànk jëmale xibla dañ koo diisal lool gaa yu baax yi dañuy wax ne dañoo war a fonk xibla ba kenn tàllal ay tànk mukk jëmale ca kon nag nañu moytu tàllal seeni tànk jëmale xibla batay li ñu wax na jigen bu dé muru da wara julli bala waxtu wa jot njuumte lu reey reey la waxtu julli ba dara du ci soppiku julli yàlla ko sàkkal waxtu julli gu ne am fu mu tàmbalee ci waxtu am fu war a yam nga xam ne julli te waxtu jotul daa araam yeexe ko it ba mu jàll ci lu dafa araam kon nañuy moytu Jitu waxtu wa ñu xam bu baax itam ne jigéen moom bu dee ci yoonu malik jigéen mënta jiite kenn mënta jiite jigéen ne moom rawante na góor kon ñaar mbaa ñett buñ bokkee benn barab bu ñuy muuroo itam te gisuñu góor gu leen mën a jiite bu waxtu julli jotee kenn ku ne day julli julli boppam waaye kenn du ca jiite ka ca des ba tey jàpp bu baax ne lëmmata ñàkk mooy fanaan ci ab néegam guddi gi moom faaw rek mënu koo ñàkk fanaan ca néeg ba waaye bëccëg bi moom bu amee yitte joo xam ne mënu koo ñàkk doxi te amul koo ko doxali mbaam am liggéey boo xam ne mënu ko ñàkk liggéey te amul koo ko liggéeyal mën na caa demal boppam lu mel ni nag génn dem ci aw xew ni ki dem ci ciit mbaa ngénte wala dem di jaale ji am na ñu ne mën na ko am na ñu ne mënu ko wax ji gën wóor nag mooy na ko moytu bañ koo def moo gën a wóor balaa génn rek ci bëccëg bi na am yitte joo xam ne mënu koo ñàkk doxi te amul kenn koo ko doxali mbaa liggéey boo xam ne mënu koo ñàkk liggéeyi te amul kenn koo ko mën a liggéeyal ba tey nag muy góor muy jigéen fu mu toll war nay bàyyi xel ci ne ku génn àdduna mu ko yàlla gërëm gërëm ak fa mu ko jëmale lu mu tedd tedd ak lu mu kawe kawe bala ko faa àggale ñu fayal ko ay borom ndegam amee na ay bor kon nag kenn ku ne war nay moytu bor te itam ku génn àdduna ñu war a taxaw temm ci buñ ko fayale ay dorom ndegam bàyyi na lu ko mën a fay ndax na ko addis bu waxe moom dafa wértu dëgër wax ne lu waay baax baax ak fa ko yàlla jëmale ci teraanga lu mu kawe kawe bu fekkee amewoon nay bor sun borom du ko fa àggale da koy téye ba bañ koy fayal bor yooyee han abi hurayrata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن معلقة بدينه mooy ay maxbuusatun xan maqaamihal karim ak xadiis abu xataada boobu nga xam ne daa wax ni yonent bi dafa taxawoon di xutba ci seen biir ba wax ne jihaad ci yoonu yàlla ak gëm yàlla ñoo gën mboolem jëf yëpp yëpp benn waay jóg taxaw ne ko yow ki yàlla yónni su ma dee xeex ci yoon yàlla ba ñu rey ma ndax daañu ma jéggal mboolem samay ñaawteef mu ne ko waaw bu àndee yéene ju rafet dëgmal jihaad delloo gannaaw ba ñu rey la ñu jéggal la la set wecc ci lépp luy xeetu ñaawteef ba melee ne wax ci daayam foofa amatul luñ cay teg yonent bi laajaat ko ne ko loo waxati mu ne ko dama ne su ma dee jihaad ci yoonu yàlla ba ñu rey ma ci ñu ma faral mboolem samay ñaawteef mu ne ko la ma waxoon rek mooy waaw waaye nag jibril moo ma ne ma ba mu des bor bu fekk amoon nga ay boromam du bokk ci la lay wàcc waxan abi qataadata al harith ibni ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني قطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه مسلم bataaxel bi nga xamni mom la serigne Touba bindon maam Thierno it di ci digal mu xamal ñepp ne len mom serigne bi day ay ku ko wut dara ci alal ta fekk mu amé bor tekkene la tax moy dama hisab sa bop ba nopi te bëggu bu yalla sa borom di isab keneen te sama jëm ji tax bataaxel ga ñu rek ko sëñ bi bindee tuma inni amuruka bi an tuallima nnaasa anni nahaytu عن أن يأتيني أحد بشيء من المال وعليه دين لأني حاسبت نفسي ونويت أن لا أكون سببا لحساب أحد أو ضيخه daanele ko fanta bi wa nabbi wasalaam yeewul te yeete fanta bi wa nabbi